Je n'ai jamais vu dans le monde des candidats dire qu'ils sont candidats et aller à la télé leen bu leen ma wootee woote leen keneen ñooñu ñàkk fayda la mooy dama leen di tudd ñu xam seen bopp ki ma ci gën a bett mooy Habib Sy Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye yëpp sénégalais yi la ñu def dossier def caution dem conseil constitutionnel ñun leen candidat ngeen ngeen ne ñooy jomaay loolu ñàkk fayda du ko raw la première fois dans le monde. C'est la première fois dans le monde. Il faut, c'est une escroquerie qu'il faut dénoncer parce que les Sénégalais ne méritent pas ce cinéma.